bi mooy ñu ngi jëm ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. ci gàmmu gi euh, tey laaj ma lay biral rek mooy sa diggante ak Serigne Moustapha Sy euh, ki nga xam ne si mooy jiitu Moustapha Sy mm-hmm. euh, jàmm ak salaam mm-hmm. moom day musuma wóolu si Malick moom musuma wóolu suñu Moustapha ak Siddiqu man maa ko tuddee al Moustapha Siddiqu sëriñ Moustapha mi nga xam ne dañ ko tudde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di ko hmm. dàkkantale man man sama bopp maa ko dàkkantale Abu bakkar mu hmm. nga xam ne moo doon xarit yonent bi ñu di ko dàkkantale as siddiqu waxkatu dëgg bi man maa tëdd suñu borom wan ma sëñ Moustapha mu ñëw sama kër fekk sama robine tëje mu ubbil ma ko robinet ndox may xelli te loolu xéewal la robinet bu tëj boo ko gisee baaxut Mm. waaye moom dafa ñëw fekk sama robinet tëj ci baatin moom sëñ Moustapha moom sëñ Moustapha mu ubbil ma ko ma gisaat sëñ Moustapha si taxawaat ci côté robinet bi teg fa ay fruits bi ma xëyee damaa dem jënd ay fruits la ma gis muy banaana muy orange muy pomme dama ko jën jënd saraxi ko ci laa gis koo xam ne jege na sëñ Moustapha xale bu yaru xale bu maandu xale bu teey mu diina bu dëggoo dëgg dëggul dëggu gëm sëñ Moustapha si lool bu ko sëñ Moustapha si bërëngalu woon ci escalier yi sax da koy def ndax bëgg ku mbëgg sëñ Moustapha si ndax daa fekk baayam nekk taalibe Cheikh muy Pape Sow soxna Pape Sow di Penda Mbay ma xam ko bu yàgg ci laa ko woon ne ko ah man ne bëgg naa gis sëñ Moustapha si moom nag si Malick ba mu déggee ñu ne ko Selma Ndom bëgg na laa gis dafa ma ne naa ñëw ndax dama ciy sant yàlla jull ci yonent bi bu baax a baax sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul sant Cheikh Ahmada Tijaani mi nga xam ne mooy maamam te suñu borom won ma Cheikh Ahmada Tijaani maanaam moo tax xam naa dafa amug yéeg ñii ay borom. baatin la yàlla yëpp xam naa nga gis kon. Euh, kenn daal laa ci gis Cheikh Abdou Khadir ko de waaye ñoom ñëpp day majeure partie ñu fi gën a bëri suñu borom dama leen di won gis nga leen waaw Cheikh Omar Fouti gis naa ko. Mhm. Euh, Cheikh Ahmada Tijaani gis naa ko. maanaam ñoom sëñ Moustapha ni ñuy def def tapis rouge fee rang ñu mel ni ay militaire rang fii ay militaire rang Cheikh Ahmed Tidiane noonu la mel mun naa la wax lu bëri man nag bëgguma ko gëm Selbé vraiment loo ma kenn Selbé ginnaaw kenn ku ne kenn kenn kenn ku ne boo deewee da ngay laloo sa loxo ndeyjoor xam nga wax boo xam ne du dëgg doo jàkkaarloog caméra da ngay sëggar sa bët wala nga def yëf kii di déedéet na ma naan jàkk caméra bi ne gis naa Cheikh Ahmed Tidiane gis naa Seydil Hadj Malick man Selbé gis naa maam Baye ba ma gisee yonent bi fa laa gisee maam Baye gis naa Cheikhul Khadim Mbacke Balla maanaam gis naa eh, Cheikh Oumar Fouti wax naa ko maanaam gis naa Baye maam li maam la max bañ ma bëggee tëj kaso ca la ma maam li maamu feeñ ñu ne ma Selbé duggal ci géej gi hmm? waaw maa la ko wax keroog une heure du matin laa jël aas ndaw aas ndaw mi nga xam ne chauffeuru sëñ xaas la aas ndaw boo demee boo ko laajee seen xaas keroog aas ndaw moo ma dawal otom yóbbu ma ci géej gi guddi boobu dañ maa bëggoon a tëj dafa am ku ma amaloon nag euh, problème mm-hmm. bëgg maa tëj man li maamu feeñu ma ma dem ci une heure la ma yóbbu kon maanaam sunu bo sama borom boole na ma ñu bari vraiment wax mm-hmm. dëgg yàlla mm-hmm. waaw maa ngi ciy sant yàlla sëñ Moustapha lay faral voilà sëñ Moustapha léegi nag ba mu déggee loola xam naa dafa am yëgu ne ah xaaral ndax léppam ndigal lay dox léppam ci ndigal lay dox si Malick léegi nag ca la ma woowe ma daal dem nag mu teral ma boo bëggee gis ku oyof demal ci sëñ Moustapha Sy soo bëggee gis boroom xolu jant bi boroom xolu jamaa bi ñuy wax ni ñu koy waxee xoolal sëñ Moustapha si boo bëggee gis ku dal demal ci sëñ Moustapha Sy moom day def te du indi caméra. kii Moustapha Sy day def lu baax xool nga am alal xool nga nga ñàkk alal day def te du ci du def caméra kenn du ko filme li muy def moo taxit suñu borom dina ko fay waaw looloo tax man maa ko bëggal sama bopp ndax man maa ñaan audience pour mu ma dem foofu far ma dem mu fonk ma lool nag si Malick fonk ma xaru tabaski moom mii ma ma ko wàcceel si Malick hmm? barke yonent bi chaque année daf may jox xar addiye Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam barke yonent bi xool ne sel bi sel mii day wax am na njëgu xar ndax man samay waajur yëpp dañuy génn àddina aw ma borom kër hmm. moom de mënoon na maa def ni ni ma ñeneen ñi def di ma jéem a xeex waaye kii wala yu kaamil la kuy xeex nit di ko yàqal rek baaxuloo si Malick moom bokk ci ndax borom yërmande la day jàppale ay nit ay borom kër yoo xam ne am nañu sax da leen jàppale moom xoolul lu nit am xoolul nit amul su la waree jàppale dafa lay jàppale moo tax ma fas yéene ànd ak moom ci gàmm gi su ma woowoon ci ay xam-xam sax barkati laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu nekkee damay raam ba pare toog di sekki dégg yi sax dinaa ko def parce que damaa gis ci moom ak wàllu yi gu leer waaw moo tax fu mu taxaw rek su ma woowee rek bu ma feebaree sax dinaa ut oto dugg ca bu may tëdd sax may tëdd waaye naay dégg baatam ndax la muy wax dafa leer fa mu koy teg leer na ci yàlla lay wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araabu sëñ Moustapha man moo ma gën a neex man ma sañoon damay toog ci wetam rek mu di ma wax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxuraanam yii araabam yii damu ca yàq waaw macha di ko ñaanal mu gudd fan ànd ak wér yàlla bàyyi ko fi di nuyu Fatimatu taawam bu jigéen boobu Fatimatu bintu rasul moom mi ba dippe Fatimatu doomu yonent bi sallallahu alayhi wa di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax di kontaan ci ñoom di nuyu maam Cheikh mi nga xam ne moom la tuddee waajuram ba pare jël ko léegi jël lépp teg ko ci loxo maam Cheikh di ko ziar di ziar beneen doomam ji macha allah bëri lawul waaye yal na yàlla barkeel li mu am daraje Seydina Muhammad waaw